waaw lundi laa génn prison nak. après euh, après un an. waaw donc mars 2023 laa duggoon génn mars 2024. waaw donc vraiment mais sant Yalla rek. waaw sant Yalla rek lenn dal la xamni mom momo metti lol ci sama genn bi Moy li ma bàyyi sama gennaw Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko waaw bàyyi leen bàyyi sama gennaw mom metti na métti na ma fi métti yow. waaw parce que vraiment man ak ñoom ñoo bokkoon fi ñu Euh ku ci mel ni Bassirou Diomaye chaque jour que jëfee on passait toute nos journées ensemble et tout le moment ensemble. donc vraiment waaw donc vraiment génn ma génn wan ko ginnaaw neexul si xool dara neexul neexuma daal bëgguma ko dara dara dara. Euh, waaw mais dañu war a génn parce que loolu mooy yoon instant bii nii il n'a plus rien à faire mais nag li xaw a dal sama xel rek mooy Bassirou Diomaye ndaanaan la euh, ndaanaan la euh, il a un mental de fair Bassirou Diomaye a un mental de fer ma wax ma wax la benn anecdote bu ndaw. man bima gisé ci télé télévision bo boo ci kasso bi man dama duggu deux semaines jomay rogo ñew mais bima déggé ni basul jomay nak japp nañ ko ma jékki-jékki dégg ni dañ ko indi Cap Manuel man sama yaram dafa daw parce que bama jomay fay bima xamone depuis 2014 dafa nekkoon nit ku sedd manam nit ku noppi donc mënu moon imaginer basul jomay duggu kasso sama xel li ci nekkoon moy bu duggé kasso naka lay comporter wo lolou dafa ma un problème ben guddi damaa tok sama cellule ben garde ñew ni ma indil nañu sa xarit man ko kan la mënuma basiru jamaay man ko ah bom la ma waw ma taxaw ci gree yi xol ma gis negam koy man comme que dama japon ni basiru jamaay ni ku sedd la bam ma koy xam ni ku dal la ma sama xol nanguwul ma imagine ko ci biir bi ma fëgg buntu bi demande garde bi ne ko dama bëgg dem gis chef de cour ñu ubil ma madame gis chef de cour mané ko dama lay ñaan ngir yàlla Bassirou Diomaye indi na ko sama nekk dama la ko ñaan Bassirou Diomaye indi na ko sama nekk chef de cour ne ma Bassirou Diomaye yéen ñaar mënu leen bokk nekk déjà sax bokk bi ngeen bokk secteur sax mënul woon nekk amuñu solution moo tax ngeen bokk secteur waaye secteur sax war leen koon bokk yéen ñaar man sarax ko ba sonn mënoo mënul nekk parce que loolu bi ma koy def bi ma koy def damaa jàppoon ne rek Diomaye bu duggee kaso du nekk daal loolu laa jàppoon léegi ma bëggoon mu ñëw sama nekk ma man ko ma mën ko jàppale Yang kau comprendre sama sama sama gudd gi yëpp kelak. la ama mais à grande surprise ama ma grande surprise bima ma suba ama ama grande surprise bima ya yeewoo suba la lendemain dañoo tëj bunt yi rek ma daw néegam maa ngi daw néegu Bassirou Diomaye yaakaar su ma ñëwee dama ko fekk mu mu low mais billaahi wallahi wa taalaahi damaa egsi néegu Bassirou Diomaye taw xool ko maa ngi fekk Bassirou Diomaye mu faranku ci digg bi ci bi tek ndekiyam ay beñam ay sanducham tek livreum tek kasu kafem jor ko mantelem jakalo tan di di ndeki manako manako wa manako wa mais basir lum demé ni man ma ngi tit gën di yakar man mo lo tit manako ah man dafa na tu n'es pas à l'aise man boy tejé buntu bi nga ñew ndek manako sété man boy kay nga ndeki man dugo ci negam ñun ndek di waxtaan mako mais kon boy yow grand am nga am nga moral de man ma babagar mako nam man ma ñun li nek ni lii moo ci gën a ndaw Babacar ñi dee nii ñi dee tey wala ñu yeewoon ñu tànn kaso yi armeer ya ñun nañ sant yàlla li am solo mooy li ñu dugal fii nii bu mu nax saay li rey nit ñi bu mu nax saay li gaañ nit ñi bu mu nax saay 2024 bi nag na Sénégal yëpp wane ni ñëpp wane ni changement jot na rupture jot na ñu fal Bassirou Diomaye Faye am président bi gën président yi daa ngeen man amoon naa amoon naa question bu ma question bi nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllum amnistie yéen bi ngeen déggee nii euh, euh, ki nga xam ne mooy le chef de l'État nee na daf leen di baal lan moo nekkoon seen première réaction. alhamdulilah na mën nañu baax a baax merci jàmm enchanté euh, grand ku tooñ mooy baalu ku tooñ la baal wax laa wax nag ku tooñ mooy baalu ku tooñ la ñuy baal jour bi ñu déggee loi amnistie nekk ci kaso bi dañoo xëy lendemain ma gis sama frère ngañ gañ ngañ ne ma ah dégg naa Macky Sall dafa def loi d'amnistie bi mu ko waxee ma ne ko man ànduma ci ndax am na ñu dee fi ñuy waxtaanee Bassirou Diomaye egsi ñu ne ko président loo xam ci loi amnistie bi loo ci xalaat li ma la tontu léegi nii Bassirou Diomaye moom ma ko tont dañ ko woo laaj ci prison bi loo xalaat ci loi amnistie bi Bassirou Diomaye nañu ku tooñ mooy baalu ku tooñ la baal ñun tooñuñu bay baalu dañoo tooñ soxla ñu ko ñu baal nest victime ñu ne danga tooñ ab ki nga xam ne euh, des militants en tant que victime des militants di dem ci plateau di wax ni ah euh, Macky Sall na baal na leen parce que dañoo tooñ Macky Sall euh, lan lan ngeen yéegoon foofu. Macky boppam la baal boppam la baal waaye nag baal na boppam mais askanu Sénégal baaluñu ko askanu Sénégal baaluñu ko. damay wax 12 ans de malversation 12 ans de guerre 12 ans de rey 12 ans de torture 12 ans d'exil dama ni le président Maxal, Sall mom ak tout son régime nañu xam impunité dans le Sénégal lan ce qui motiver Hannibal ak yeneen ñi nga xam ne nag jàppoon nañ leen tey ji ni dañoo yaakaar ne dañuy toog mën a faju waaye gis nañu ni à chaque fois que Pastef woote dañuy wàcc sur le terrain ñun suñu ngëm-ngëm du Macky suñu ngëm-ngëm mooy Sénégal mën na doon réew bi gën ci suñu ngëm-ngëm mooy Sénégal mën na doon ci réew bi gën ci réew yi te loolu Macky Sall duñu ko yàqal Macky Sall duñu yàqal loolu jëmm Macky Sall intéressé wuñu son régime son gouvernement intéressé wuñu Sénégal daa war a nekk réew bi gën ci réew yi ndax